Omar organisé baytul maal baytul maal mu def ko piste yi xaalis bi dikkee muy ñetti nit lii azaka la nit kee koy coobarewu lislaam laaj ko ko mu nangu koo joxe lii imp la nit kee bañ a dugg ci lislaam nit ki bu bañee dugg ci lislaam ñu ne ko kon del fay imp bu ñuy dimbalee lislaam lenn li nekk ay manga yoo xam ne bu ñu tojee réewu éfar dañ ko fay jëlee ñu di ko dajale lenn li mooy ni ñuy donnalee wala bu nit dee amuñ ku ko donn baytul maal jël alal ja Omar ibn al-Khattab dal di ko séddale noonu jël alal yi nag di ko séddalee ñi nga xam ne ñooy dem ci guerre bi mu def nii nee na soxna yeneen bi ku ci ne weer wu nekk am nga nangam nee na ñi fekke woon Badar ñooñu am nañ nangam ñi nga xam ne seeni jëkkër dañoo dee ci xareb lislaam am nañ nangam mu jël Xasan ak Huseyn ak Abu Darin al Xifaari ak Salman al Farisi nee na fekk wuñ Badar waaye yéegal naa leen ci ñooñu ñoom it am nañu nangam mu ne waa Hudaybiya am nañu nangam seeni jabar danañ am nangam ñi fekkee Qadisiya dañ leen fay nangam ñi demoon xareb Yarmouk danañ leen jox nangam ila axiri ñooy nga xam ne fonctionnaire yu l'islam lañ ku ci nekk Omar Sakk loo xam ne dañ la ko jox nga mën koo dundee ba bu l'islam ne jógal rek nga dal di mën a jóg loolu mooy amalul idariya li Omar ibn al-Khattab ñu del si ci point juróom-ñaareel bi moo di manaqibu Omar ibn al-Khattab maanaam daal ay ngëneelam ay royukaayam Omar ibn al-Khattab bu ñu doon misaal tey ay manaqibam daanaka buñ ci nekkoon ba ngoon it du mën a jeex waaye danañ mën a wax ne borom yi jikko la woon jikko yoo xam ne yu sell la borom jikko yu gën la woon Omar ku maandu la woon Omar ku ñeme la ci génne dëgg ci ak ci génne caaxaan ba nit ñi mën ko wattandiku ak yàq ko Omar soldaar la woon waaye bu tedd waaye bu laab xol gëm yàlla ku mën a roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam la Omar ku mën a topp sunna si yonent bi la Omar du génn mukk ci lépp loo xam ne lislaam digle na ko ci loolu rek lay yem du ko jéem a génn Omar ku amoon ak wegeel la Omar buuri àddina yëpp buuri Paris ak buuri Rome ak ñoom ñëpp dañ koo ragaloon waaye terewul Omar ku mënoon a suufel boppam la nekkutoon daal nit ku rëy kuy kowe kowel Omar ba mu nekkee xalifa yére yam daan sol ba mu nekkee Omar ba mu nekkee xalifa jullit yi itam yére yooyu rek la daan def Omar daal di wax ne fal nañ ma nangam naawut yére yu toll ak nangam Omar ma nga xamoon ba mu nekkee saxaab yi rek ba mu nekkee xalifa yi Omar moom rek la benn bés sax fekk nañ ko ma nga tëwoonu ca suuf te jàkk ja geganoo suuf sa rek benn buur jógee Paris ñëw di ko wër di ko wër di ko wër ñu ne ko ma ngi ci jàkk ji mu ñëw wër wër ne Omar day nekku bi ñu ne ko mooy waa jële mu ne waa ji geganoo ci suuf mooy Omar ibnul Xattaab ñu ne waaw mu ne ah ah kii day doy na waar loolu ci jikkoy Omar la woon Omar daal fal gi soppiwu ko woon Omar xéewal gi réewloowu ko woon Omar mësul mën a gudd aw làmmiñ ci kaw julit ndax rek man maay buur bi loolu Omar melu ko woon Omar itam mësul jox kenn dëgg te amula dëgg ndax daraja ji nga am nga am daraja rek mu jox la dëgg Omar du ko nangu kii tedd na rek du tax nga yaakaar ci Omar dëgg su fekkee amoo ko néew naa doole it du daw sax kenn naago ci Omar yaakaar ne du la ko jox naago mooy ñàkk yaakaar yaakaar dëgg Omar mësu la ragal ci dëgg ak mbirum yàlla mësu ci ragal ku ko ci yedd boo ko joxee baax na boo ko joxul yoonam nekk ci Omar sit yi moom mu koy dajale ci baytul maal moog jullit ñi ñoo ci yem dafa nekkoon jaraaf rek di seet nu ñu koy organiser nu ñu koy séddalee waaye ñoom moom ñoom ñoo ci yem ab cëram daal comme cëram li muy fay solde kenn ci muhaajiroon loolu moo doon solde Omar ci baytul maal rek ndax moom muhaajir la Omar ibn al-Khattab boo demee ci taarix jariru tabari nee na Omar nee na innama ana wa maalukum kawali yatim istagnaytu istaafaftu wa iftaqartu akaltu bil maaruf Omar ne man daal ci àlli jullit ñi maa ngi mel ni rek ku yarab jirim ku yarab jirim al alquran def ne soo amul nga lekk ci lekk bu yem soo amee nag nga bàyyi may su ma amee du ma laal baytul maal su ma amul ma dindi ci rek lekk moom rek lay def ak yéen Omar ibn al-Khattab bokk na ci ay manaqibam moo di ne nit la ku ñëpp a wegoon nag niñ ko wegee woon sax wegee wuñ ko woonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li koy tegtale mooy lii nga xam ne ulama wu siira wax nañ ko ne benn jébéer boo xam ne xabasa la jóge woon ku ñuul la woon te gëmoon yàlla ba yonent bi dem xarib uxud ndaw si ne nisar naa ci yàlla ne bu yonent bi dellusee ci xarib uxud te dara jotu ko mu mucc danaa tëgg sama ndënd mi yendoo tëgg ndënd mi ngir ngir bég ko ci ñibbisi yonent bi te deewul ca xare ba yonent bi dem na xarib uxud yàlla dogal na dellusi na ndaw sa nekk ca lam nisaroon nekk ci dëndam rekk di tëgg ci biir kër yonent bi di tëgg rek Babacar dugg si toog ndaw si tëgg rek Alioune dugg toog ndaw si tëgg rek Ousmane dugg toog ndaw si tëgg rek saabu yëpp ñëw wër yonent bi ndaw si moom ma nga ñaqatoo xëpp nekk ci la miséroon di tëgg ndënd mi rek ngir bég ci ñibbisi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ba mu déggee Omar ibnul Xataab noyoo rek mu daal di denc galan ba yenu ndënd ma daal di ko nëbb toog nag nga dem ne tekk mel ni du moom ba mu duggee yonent bi ree ne inna cheytaan la yaxaafu min ka yaa Omar ibnul Xataab ne ko seytaane sax Omar yow seytaane sax ñemewut la ñëpp rek ñoo la wet maa ngi fekk samay saxaaba ndaw si bayu waaye ba nga duggee rek bàyyi jarilu tabar yi nee na nit ñëpp ni ñu wege woon Omar ibnul Xataab wege la woon goo xam ne gu gu mag la bi Omar nekkee xalifa képp ku daan toog ci garam place da nga ne duma demati ci garam place fee xaw ma lu ci Omar nar a wax ku ci ne toog sa kër di ne tekk di xaar Omar lu mu nar a wax kenn ñëwu ko Omar nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naa ne moom yonent bi sax dafa wegoon Omar li koy tekki mooy Aïcha nee na benn bés comme ni ko Ibn Hisham nettalee ci taarixam Aïcha dafa toggal yonent yi benn ruy xariira la yaakaar naa ñoom Oustaz Saadi bu ñoo xam loolu xariira benn ruy la bu benn espèce supp la marocain yi ñoo koy def bu mu ko toggee jox yonent bi dem nag ne sawdatu wëjj wi fokk da nga ñëw lekk ak man ak yonent bi sawdatu bañ ñëw toog ne duma lekk suur naa ñuy foofu Aïcha di jël ruy bi di ko raax ci kanamu sawda sawda yi di jëlaat ruy bi di ko raax ci kanamu Aïcha ñuy ree yonent bi di naan di leen reetaan ñu nekk ci loolu daal maanaam di di foofu ba ñu nekkee ci loolu ba mu yàgg ba ñu déggee Omar ibn al-Khattab noyoo rek yonent bi ne jóg seen gaaw ngeen tël mu raxas seen kanam Omar ibnul Xattaab mu ngi ñëw noonu la meloon Tabari wax na ci téeram ne Omar ibnul Xattaab dégg na nag ne nit ñëpp falu na nekk xalifa ñëpp ne Omar ku xiis la Omar ku dëgër la ñëpp ragal ko Omar ne nañu woote ci jàkk ñu woote ñëpp ñëw toog di ko dégg Omar ne leen Omar yéeg ca minbar ba fa Babacar daan toog teg tànkam ya Omar ne moom yëggu ci dara yi Babacar bon fi Babacar daan teg tànkam foofu lay toog mu toog foofu nit ñëpp ñëw Omar daal di sant yàlla daal di julli ci yeneen bi ne leen balagani an annaasa haabu shiddati wa xaafu xilfati wa qaalu qad kaana Omar yashtaddu alayna wa rasulullahi bayna azhurina suma ishtadda alayna wa abu bakar waalina duunahu fa kayfa ida saarat al umuuru ilay fa qaala Omar wa man qaala dalika faqad sadaq Omar ne nit ñaa ngi wax ne Omar ku xiis la ku tar la ku dëgër la ku jafe la nit ñi dem nañ bay wax naan Omar lëjël nanu te booba yonent baa ngi suñ kanam Omar lëjël nanu te booba Babacar mooy xalifa Omar du xalifa sax terewul lëjël nañu xamul nag fu ñu jëm bu Omar nekkee xalifa tey Omar ne kii wax loolu kat wax na dëgg noonu laa mel. waaye nag damaa nekkoon ak yonent bi nekk nekk guneem rek di ko liggéeyal lu ko yàlla digal su ma ko waxee rek ma def ko ndax xam ngeen yonent bi kenn jotu ko ci nooy ak yërmande loolu tax man ma nekkoon jaaseem bi ñu bocci damay bocceeku rek lu koy bëgg a lor ma dal ci kawam te bu ma yonent bi dugal ci mbar ne ma toogal noonu laa nekkoon ak moom moom yonent bi dem na ba muy génn àddina gërëm na ma ci loolu maa ngi ciy sant yàlla am naa ci honneur neex na ma mu ne Babacar ñëw Babacar mu ne kenn ci yéen mënul weddi ne ku tedd la ku nooy la ku rafet jikko la ma ñëw nekk xale la nekk guneem su ko defee nooyam nga mu koy jaxaseeg sama dëgër gi ndax xilaafa gi mën a dëgër ma nekk jaaseem rek bocceeku rek te dugaluma ci mer ne ma Omar bàyyil du ma bàyyi su ma bàyyee rek ma wéy su ma taxawloo ma taxaw nii laa nekk Babacar ba yàlla jël ko mu gërëm ma ci loolu am naa fexe ci loolu man bég naa ci loolu mu ne su ma indil yow ma wulitu umurakum ayuha nnaas waalamu anna tilka shiddata qad udifat walakinaha innama takunu ala ahli dulmi wa taaddi ala almuslimin faama ahlu salamati والدين والفضل فأن ألين لهم من بعدهم لبعض ولست أدعو أحدا يظلم أحدا ويتعدى علي حتى أدى خدع على الأرض وأدى قدمي على الخد الآخر حتى يزعن بالحق ولكم أيها الناس خصال أذكوها لكم فخذوني بها عمر ني سما دبر غوغا ngeen dan deg doleku na ku la ne ñaari yoonam waye nak képp kuy tooñ tiital Omar ñëw na képp ku nekkul ci dëgg tiital Omar ñëw na képp koo xam ne ku yiw nga nitug dëgg nga nitug jàmm nga man maay gën a nooy ci yow sax sa bopp waaye de duma bàyyi kenn tooñ kenn lu may ki tooñ ak lu mu kawe kawe lu mu tedd te dinaa tëral sa lex bi ci suuf jël sama tànk teg ci kaw ba nga xam ne yaa tooñ noonu laay def ak yéen mu ne nag am na ay jikko yoo xam ne danaa ko wax bu ngeen ne ngeen jàppee ma ko moo di ne du ma leen nëbb dara ci alal ji nga xam ne moom ngeen di dajale ci azaka bi ak impôt bi ak li ngeen di génnee muy rikaz bi ak xaraaj bi muy maadin yi ngeen di génnee ci suuf muy li ngeen di jëlee ci xare loolu moom du ma leen ci nëbb dara fii la nekk ni ma koy defee yéen ñëpp yéen a ko bokk xam noonu lay def ak yéen am na it loo xam ne mën ngeen ma koy jàppee. moo di ne seen alal ji di baytil maal du génn mukk lu mooy ci lu yàlla tëral lu mooy loolu du dara du ci génn te moom ngeen ne ba ngeen jàppee moom leneen li itam moo di ne képp ku am xàq fii képp ku ma yebal ci guerre sa njaboot sama njaboot lay nekk ba nga dee wala nga dellu ci fekk mucc nga loolu daal na ngeen ko xam ku dem guerre daal xamal ne Omar mooy bàyyi sa njaboot ba ba ngay ñëw wala ba nga fay dee loolu dina ngeen ko xam loolu la Omar waxoon juróom-ñetteel ba mooy jeex ak mbirum Omar ibnul Xataab te loolu la waxtaan wi di jeexee nekk na mbir mu doy waar rey gi ñu rey Omar ibnul Xataab muy ñaareelu xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam kirim la woon bu ñaaw bu mag ana ñan ñoo ko fexe mel ni mbooloo ci nooni lislaam ñoo ko fexe ñooña dugg nañ gaa ci lislaam waaye dañ caa dugg rek ngir ragal waaye seen xol gëmul ku ñu naan Muhammad Asad Atlas wala Muhammad Asad Talas wax na ci téeréem bu ñu naan al xulafa u rachidun nee na benn perse benn iranien bokk na ca ñarey Omar ibn al-Khattab ak benn yahud ak benn nasaraan ne nañ ñii daal ñoo fexeel Omar ibn Xataab berey mu ne lu tax benn iranien bokk ci mu ne waa Iran ay ceddo lañu dugg nañ ci diine waaye gëm taxut nguur bu rëy lañu amoon bu am doole Omar dam mën a ñëw ko jëf rëy na seen rustum Bahrazan seen buur ba jàpp nañ ko indi ko madinatul munawwara danañ ñëw léegi ci ni ñu ko jàppee ak la mboxoon ak Omar léegi nag li nekk ci xelu Iran yépp moo di ne rey arab yi bi sifa am waaye rey Omar ibnul Xataab ak yàqal islam bi sifa xaw rey arab yépp en général Omar ibnul Xataab en particulier loolu moo doon xalaatu iranien kon looloo tax buñ ne bokk nañ ci ñu rey Omar ibn Khattab ñu xam ne am na sabab yahud bi muy juif bi israélien bi mooy ku naan kaabul ahbar waxtu wooy liir téere muy histoire wala firi alquran wala taarix bañ ne kaabul axdaar wax na rek dañoo jox booy ba génn ci mooy yahut bii waxul waxul dara lu nekk tëdd xista yi ci daqaayiqul axbaar ak badaayu zubóor ak yëpp buñ ne kaabul axbaar wax na rek génnal ci wax jooju ndax yahut la boo xam ne gëmul yàlla gëmul yonent bi ragaloo ko dugal dugal ci diine ji muy bind nag ay xalaat yu bon dugal ko ci lislaam ndax jullit yi bu ñu ko jàngee ci téere arab yi ñu yàqu wala ñu yàqu la kaabul axbaar bokk na ci ñi rey Omar ibn Xattaab moo tax nga dégg benn waaye naan téere bi man soxal nañ ko wala xiste bi wéru yu mel noonu koy indi kooku kaab la kenn ki mooy benn criminel boo xam ne defkatu bakkaar defkatu njaaxum koo xam ne dugg na ci lislaam ci kaw waaye ci biir kéefër rek ak pexe fitna moo nekk ci moom kooku mooy kaabul axbaar moom ma lay wax ak tasaare ay caaxaan ak i fenn ci jullit ñi ak nekk lii xis naan dégg naa ci yonent bi nangam comme ma ngi saaba la woon fekk na jamono yonent bi te fekk déggu dara wala wérewul noona wala yëf yi mu ca yokk la keneen ki mooy perse bi iranien bi te ni majuus kooku mooy Harmuzan mooy buuri Faris buuri Iran ba ñu jàppoon ca xaret Qadisiya ba ñu ko jàppee moom Harmuzan yoon di ko ci kanam Omar ibn al-Khattab fekk yàq na suuf ci kéefër yàq na suuf ci bokkaale fi ne kóolëre ak Omar bind na ko bañ fasante kóolëre ay yoon yoon muy wor ba léegi ñu xeex ak moom ba jàpp ko ba ñu ñëwee ba taxawal ko ci kanam Omar Barazan ne dama mar Omar ne may leen ko ndox mu naan ñu jox ko ndox mi mu ne duma naan ndax damaa ragal ma sëggee naan ñu rey ma Omar ne ko rey gaa dañ la nar a rey ndax majjuus nga te naroo gëm yàlla waaye nag feeg ba ngay naan ba sottal dee duñ la rey naanal mu tàmbali di naan juri di ne Omar jox nga ko kon sécurité ba mu naan ba sottal kenn du ko def dara ba mu naanee ba sottal mu wóor ko ne taxawaay bii daal dugg ci diine moo ko ci musal mu daal di ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah omar ne ah mu cën a kat donte waxul dëgg ñu daal di ko bàyyi armosaan moomu nag toog ci dëkk ba omar ji ko teraanga nag ne léegi daal lépp lu ñuy fay mutili yeeg ancien combattant yi fekke woon badar ak gudday bi yaag xuney nañ ko koy jox muy dundee moom barazan li omar a ko ko defal waaye terewul ma ngi fexe nag lu fi jëlee omar ñetteel bi mooy benn jaam bu soxor boo xam ne turam mooy Firoz Firoz taarix ne na zanim la zanim xaslawu wolof mënta firi baat bi bu ko wolof di firi foog mu composé ay baat yu bari mu door a firi luy zanim xaslawu yàlla rek moo moo mën a xasee noonu nit ma nga ko waxoon muxirata wala walid nu muxirata ca mag ne na ko woon yow zanim nga maanaam li ngay réyréylu ci màkk yépp sa yaay mësul am jëkkër lu mooy sa baay waaye sa baay bi yore sa ndey jirut la loolu moo tudd zanim baat yooyu ngay boole mu door a firi zanim jàmm bii nag zanim la woon moom it moom Férouz danañ koy dàkkantelee abu lu lu ata waaye Férouz mooy turam jàmm la boo xam ne Muxirat ibnu Shaaba moo ko moomoon ku bañoon arab la waaye ku bañoon lislaam la waaye ku bañoon Omar ibnul Xattaab la te mu ngi ci diine ji dafa daan yett ay gën ak i kuur Muxirata dafay sas ne ko boo xëyee na nga ni ñaari dërëm mu yett ci kuur ak i gën jaay ko wala mu sàcc waaye fu mu ni ñaari dërëm mu tase ko Omar ibnul Xattaab ci marché ba ne Omar yow amirul muminin xam nga nu may liggéeyee mu ne ko déedéet mu ne maa fi dàq yet ay gën a laay yet ndax dañ maa sas ñaari dërëm bés bu ne ma indi ko Omar daal di woo sangam ne ko woya falal ci ki nga moom li nga koy sas bàyyi ko muy liggéey di la jox ngay jaay wala muy jaay lu am jox la waaye bu ko sas loolu dagal Omar ne ko yettal ma gën na loo koy jaayee mu ne dërëm Omar ne ko yettal ma gën na ma jox la ñeenti dërëm dimbale la ko loolu moo tax bi jaam boobu reyee Omar Omar am na wax jum ci wax daan ci dikk nee na ndaxam waaye saay-saay bi day defaloon naa ko njëkk lii la ma faye Omar ibn al-Khattab ci nit ñooñu ma la tuddal ñoo ko fexel am na keneen ku leen ñeenteel kooku nasaraan maanaam ci dina Isa la nekkoon mu nga dëkk ci dëkk bu ñu naan Anbar kookaa ngi tudd Jafinata kon nag Jafinata ak Fayroor Abu Lu'lu'ata ak Harmozan buuri Paris ak Kaabul Ahbar benn yahud benn nasran ak benn perte majuus ñii ñoo fexeel Omar ibnul Xataab ba rey ko ci loola benn benn bés ñoom ñeent tase nañ di waxtaan ndeke keroog la ñuy rëdd nan la ñu nar a reyee Omar Abdurahman ibn Abi Bakar daw doomu Sidna Abu Bakar fekk leen ñu nga toog di waxtaan mu bett leen ñu ne bërëb tiit benn paaka bu am ñaari bopp wala bu am ñaari ñëw ka daal di rot mu seen mbaram paaka ba ma ngi ci ndiggal Fayroos Abu Lu'lu'ata mu xam ne paakam la waaye taxut ku mu xam lu ñu doon def ñaawu ci njort ndeke booba lañ fexe ba ne waa ji na rey Omar ibn al-Khattab ak paakam boobu te bu reyee Omar na rey boppam balaañ ko jàpp muy wax lile ñu daal di dëppoo ci ne Abu Lu'lu'ata na nga reyee Omar ibn al-Khattab léegi na maa ngi nettali ni mu ko reyee comme ni ko Bukhari yi nettali axraja al-Bukhari fi sahih riwaya an Omar ibn Maymun hada nasru qaala Amru Amru ne dama taxaw di julli mu ne julli ga julli suba la woon kenn nekkul sama digg ak Omar ibn al-Khattab lu muy Abdullah ibn Abbas kon moom Amru fi mu taxaw ibnu abbas taxaw fii omar a doxoon seen diggante mu ne jullit suba la woon omar nag bu ñu bëgg a taxawal julli sàppe su ne dafay taxaw ba sàppe si jub mu ñëw ci sàppe si ba sàppe si jub mu ñëw ci sàppe si ci jekk ba mu jub mu taxaw naan istawoo istawoo jubal leen sàppe yi ba mu jub mu door a kàppal mu ne ñu ngi taxawal jullit suba omar dugg sàppe si yemale yemale yemale ba ci sàppe si ci njëkk mu yemale ko ba war a kabar rek ñi ci biti jàkk ji ñoom dégg suñ baatab Omar xamuñ lu xew ndeke waa ji dem na ko paafee bu yàgg bi mu daal foofa nag fu Omar di kabar rek te bu kabaraal jullit suba dana jàng suratu Yusuf wala suratu Namli wala lu mel ni moom ci rakk bu jëkk di ko jàng jàng mu neex ñi ci bitti ne dañu kabar rek ñoom dégg suñ baati Omar xamuñ lu xew ñu dégg Omar ne xatala nii wala akala nii kalbu wallah Omar ne xaj bi lekk na ma wala xaj bi rey na ma wallah Abu Lu'lu'ata tëb ci julli gi ak paakam bu am ñaari ñëw kay ku mu romb rek jam la ci sàpp si ba génn dëbb na paaka bi fukki nit ak ñeent juróom-ñaar yëpp dee nañ ak Omar ibn al-Khattab benn jullit moo jël benn xeejam sànni ko Abu Lu'lu'ata rek mu dal ko mu daanu gaañ a fekk ko fa mu xam ne dañ ko nar a jàpp mu nar a wax mu rey boppam ak paakam ba mu reyoon Omar ibn Khattab ci foofu nag boo demee ci téere bu ñu naan téere bu Abdul Hamid Duuta nee na benn jullit a ngi naan asalaatu yaa ibadallah talaati shams nan julli nag jant baa ngi fenk Omar a ngi tëdd jullit yëpp taxaw tim ko Omar ne afi naas yi Abdurahman ibn Awf ndax Abdurahman ibn Awf mu ngi ci mbooloo mi ñu ne ko waaw mu ne jiital jullit Abdurahman ibn Awf dal di jiite jullit suba jàng saar yi gën a gàtt musalmal ñëpp a dawaat jëm ci Omar ibn al-Khattab ma ne waa bitti jàkk ji ñoom yëguñ ci dara lu mooy déggatuñu rek baatab Omar ku nekk ngi naan subhanallah ana Omar subhanallah xamuñ lu xew ba ñu sëlmalee Omar ne Ibnu Abbas anamu mu ñu ne ko mu ngi mu ne ñëwal mu ñëw ne Ibnu Abbas ku ma rey mu ne benn jaamu mu xëyrata moo ma rey Omar ne qaatalahu llah laqad amartu bii maarufan walhamdulillah ladi lam yajal bi maytati bi yadi rajulin yaddai lislam omar na yal na ko yàlla alal defal naa ko njëkk lii la ma fayee waaye maa ngi sant yàlla ndax yàlla defut sama sama dee ci loxol ku gëm yàlla omar ne ibnu abbas waxoon naa la bu yàgg-yàgg sa bàyyi abbas ne jaam yi ngeen di jëlee iran nitut iran dañu dëgër seen gëm yàlla rafetut waxoon naa la ne bu leen leen bari ci dëkk bi bari ngeen leen ci dëkk bi lii laa ci ragaloon abbas ne soo bëggee nu rey ñépp tey mu ne ko kaddabta kaddabt baadama takallamu bi lisanikum wa sallu ila qiblatikum wa xajju xajjakum fen nga duñ leen mën a rey ñu ngi làkk seen làkk di julli sunub julli aj sunub aj nee nañu ñu ne ñu ngi ci suñ diine dootuñ leen mën a rey waxoon naa la rek buñ ci bari ndax ay caddalu yooyu yenu Omar ibn al-Khattab yóbbu ko këram ñépp jóg dal di ànd ak moom ba ñu demee ñu ne nañu woo docteur bi docteur bi ñëw ne nañ ko nàndal benn njar ñu jox ko mu naan mu génn ci biir ba ñu indi soow mu naan ko mu génn ci biir bi ñu ne kii dafay dee booba seeni moyen ci médecine foofu rek lay toll waaye ne kon moom du dee ndax mbaq gi rek bënn benn xaleel dal di jóg ne bégal yow buurab jullit ñi Omar ibn al-Khattab yàlla bégal na la ci nga ànd ak yeneen ci bi gëm ko di ko dëggal nga yàgg ci lislaam ak li nga maandoog ni nga jubee ak li nga def ci lislaam Omar bégal Omar ne ana Abdullah ibn Omar doom ji mu ne ko maa ngi mu ne li ma yitteel mooy setal lan la Omar am ci ay bor calcul ko léegi mu calcul ko mu nekk quatre-vingt-six mille dirham mu ne looloy bor yi mu ne waaw mu ne seetal lépp lu ma am su ko matee ñu fay ko su ko matul nga dem ci sama xeet banu addi ibnu kaab ñu dajale fay ko su ko matul nga dem ci quraish lu ñu am ñu dajale fay ko su ko matul nag bul jéggi ñooñu gàddul bor bi yow abdullah ibnu omar sama doom nga fay ko naka noonu omar ibnu alxataab dal di ne abdullah ibnu omar li ma yitteel tey mooy dawal nga dem ci Aïcha umul muminin ndax Aïcha ci néegam fa la ñu denc yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa la ñu denc Aboubacar baayam dawal gaaw boo demee nga ne ko Omar ibn al-Khattab mu ngi laaj ndigal boo demee nga lawaay bu ko amirul muminin ndax nekkatuma tey amirul muminin ndax jëm naa laaxira ba pare soo demee nga ne ko Omar day ibn al-Khattab mu ngi lay nuyu di la ñaan ne su dee nañ ko suul foofu ci weti ñaar ñi mu doon àndal ci diine mooy yeneen bi ak aboubacar ni sadiq abdoulaye dali daw ñëw nuyu aïcha aïcha ne ko duggal mu wax ko wax ji aïcha ne béréb boobu de sama bopp a taxoon ma denc ko waaye nag tey de gënal naa ko jox ko omar ibn alxataab te bàyyi sama bopp mu ne ma ngi fekk aïcha ngi jooy ndax bu mu dégg ne jëm nañu omar abdoulaye nga omar dellu si ñu ñu ne Omar Abdoulaye dellusi na mu ne Abdoulaye loo indi mu ne bégal yow sama baay la nga doon ñaan may nañ la ko Omar ne alhamdulillah ma kaana shay'un ahammu ilayya min dalik amul leneen lu ma gënoon a yitteel ci loolu tey Omar ibn al-Khattab ne Abdullah su ma dee nañ ma yenoo même buñ ma yenoo ba ci nekk Aïcha na nga laajaat ndigal Aïcha ne Omar day dee na yenu nañ ko indi nañ ko bu ne dugal leen ko ngeen dugal bu ne déedéet Omar ne leen li ma bëgg daal mooy ndem dee ñëw na seen mbir nu ngeen fi nekkee nag ma bakkoog yéen bu ma ci bakkaar tegoo bu ma ci tegu bakkaar bu ma ci amati dara waaye nag su ma waxee na ma di wuutu xam naa ne ku ma gën fuuf waxoon na ko muy Babacar su ma waxut na ma kenn wuutu it ku ma gën fuuf nëppi woon na muy yonent bi ba muy dem dafa nëppi woon kon nag su ma dénkaanee kuy xalifa ki ma gën def na ko muy Babacar su ma dénkaanewul xalifa ku ma gën def na ko muy yonent bi Abdoulaye ne ba mu waxee yonent bi rek mu wóor ma ne li yonent bi def lay def kon du dénkaane mu tekki nag ne waaye gisuma day ku gën a yelloo jiite jullit ñi ci ñi mën a rëdd mbooloo mi Ali ibn Abi Talib Othman ibn Affan Zubayr ibn al-Awam Saad ibn Abi Waqqas Talat ibn Ubayd Ubaydullah Abdurahman ibn Awf ñii day kenn gënul leen yelloo njiit bi mu ne sama doomu Abdullah ibn Omar nag lu ngeen def mu fekkee waaye yoonam nekk moo ko day waxul na ko doomam doon